voilà Eumeu Sène mi ngi di génn këram léegi Eumeu Sène mi ngi génn këram Eumeu Sène mi ngeen ko gisee Eumeu mi ngi doon di dem wala wutali stade wala mi ngi dem wala wutali ca stade ba ni ngeen ko noonu wala mbër maa ngi noonu di dem Eumeu Sène Eumeu Sène mi ngi doon di dem wala wutali ca stade. Info 7 TV en direct ma ngi noonu ci oto bi voilà Eumeu Sène a ngi noonu di génn ci këram war a dem jàkkaarloo ak ki nga xamante ne bii moom moo di Bombardier B52 de Mbour voilà Eumeu Sène Eumeu a ngi dem ginnaaw bi 17h jotee ba tegal juróom-benn simili fii ci Mbao Eumeu Sène départ fii war a ca fa nga xam ne moo di wara a jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom di le B52 de Mbour Eumeu Sène ci Info 7 ngi koy gis en nii ci Info 7 ki di Eumeu Sène mi ngi war a dem ci stade ngir jàmmaarloo ak ki nga xamante ne si moom moo di le B52 de Mbour moom doomu Pikine bi doomu Mbaaw bi. doomu Pikine doomu Mbao Eumeu Sène voilà Eumeu Sène a ngi noonu Eumeu Sène a ngi génn Eumeu Sène a ngi génn Eumeu Sène a a ngi noonu